ñu gën ko xam ci Ibrahima mbay waaye ñu koy dàkkantale soppe ñu seet si ko tey bëgg waxtaane waxtaanee waat moom tuuti ci carrière bi naturellement naka lay dundee fi mu dëkk koñ bi mu bokk cosaan yi aada yi mu doon benn fem boo xam ne daal incha allah bu ci kanamee di ngeen ci xam dara kon grand bi Ibrahima ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. waaye dina mm-hmm. dalal ci émission bi nga xam ne Guest Stars lañ ko tuddee pour képp koo xamante ne rek yaa ngi yëngu ci wàllu mu mën a doon. ci média ñu seet si la waxtaan ak yow parce que média doon na mbir moo xamante ni tey jii ku nekk ngi daw soobu ci. Mhm. réellement li ne ci biir lépp lépp lépp est ce que ñëpp doomu aadama yi xam nañ ko kon ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci plateau bi macha allah. waaw Samir merci beaucoup content naa content naa recevoir trop. di la ziar euh, di ziar aussi ñi nga àndal. di ci jiital aussi sama tonton. Mhm. pa Omar Dia. nekk suma conseiller nekk suma xarit. Mhm.

nit ñi dinañ ko mën a jëriñoo incha allah incha allah macha allah jërëjëf la ñuy daal di wax rek santaat yàlla bu baax a baax julli ci yonent ba tedd bi alayhi salaatu wasalaam santaat suñu waajur yi ndax danaa lépp bu amee ñoom la Guest Star tey jii fii li ngay wax boo da doon wax ne xëy na boo màggee nga bëgg a doon star mais star tey fi ko nit ñi dëkkale ak liy star man su ma dis que ni personnellement nit ku ne rek star nga mm. parce que nit ku ci ne rek am na loo xamante ni moom nga war di jàngale moom nga war di joxe comme message fi nga dëkk ci lépp looy def. Mhm. moo tax ma jàpp ni kon. nit en nekk rek saar la. saar la loolu nangul nañ la ko <laughs> mais xam nga lu am solo nangul naa la ko dee ah. mais xam nga star ci ñun métier bi ñu féetee. Mhm. Euh, dafa xaw a doy waar complexé. parce que gars yi mot bi xamatuñ ko. Mhm. nu ñu koy utiliser. da ngay ni star la. Je commence mhm. à commence à faire des choses, je commence yenn yi mhm. situation sociale comprendre mhm. et à affaire ci nous métier toujours parce que ci exemple a aussi raison yi nga wax. ci contexte koy mais xam nga ñun ba nga métier. ans 15 ans de job. ba ñëpp xam ci fi nga toll macha allah ñu ne noonu kii star la quoi par rapport ak loolu. nga wane ko nag. mais léegi da ngay gis ku def benn clip sax nekk star. <laughs> ku def benn téléfilm nekk star. nekk benn TikTok nekk star. Mm-hmm. donc mm-hmm. finalement moo star dafa def ba. en dañ ko gars yi familiarisé wu léegi nag ku nekk na nga ko jël. Mm-hmm. léegi nag moment boobu nag dafa am lu ci diis quoi. lu ci diis nag moom baa ñoom ñu koy xam. mooy star bi sonal leen ba sambal leen. Mhm. ba ñu génn duggaat génn duggaat. yow la fi naan siiwul di am borom. bu ko peesee nañu xam ni star moo la koy yéen dafa diis. la dëgg la macha allah <laughs> euh, am solo loo xam ne wax dëgg yàlla mi ngi noonu daal c'est parce que tey jii. Mhm. Euh, dama naan fi mu ne xëy na maturité yi la xaw ma adduna la xaw ma nu mu demee noonu. ba tax na ba moo yóbbu xelu jàmm mais tey jii fi ma bëgg ñu tàmbalee ko toujours si mooy euh, bu ma doon laaj tey kan mooy Ibrahima Mbaye lan la may wax. Ibrahima Mbaye lu doy di luy tiit di lox te xamul dara Ibrahima daal benn taalibe Baay Faal la ah waa joo xamante ni ju doy di di wéy te xelam rek doyu ko macha allah am ñu nekk ci ginnaawam di ko jàppale ci lu bare bari Ibrahima taaw la ci yaayam Ibrahima tëngee ju juddoo Ibrahima fi la màggee fi la fekk baax fi la jàngee ba lycée Abdoulaye Sadji après terminal ma dem école nationale des arts génn fa donc créé compagnie euh, bu de compagnie théâtrale femme ma créé contre les violences faites aux femmes après Lolo, ci la demain, avec avec Pape Faye Zénith Art après les gueules tapé avec Makodou. mais compagnie femme bi ma créé nag daf ma propulsé sur le plan international mhm. ma suis ay concours yu bëri Machallah. Tunisie def Cameroun def Mali def affaire yu bëri mhm. mu xaw a yokk tour compagnie mais accompagner femmes aussi individuellement tu l'as lié aussi un peu avec euh, Gilles Lebert mm-hmm. avec euh, ay euh, metteur en scène yo xamante ñu nga mm-hmm. français ak ay suisse Nous sommes sur le plan international sur le plan européen Nous ñu jappé ça pour mu taxaw ci côté théâtre proprement dit mm-hmm.

macha allah euh, fooye foofu ci dingri bi footballé fa comme ñëpp fa xale yëpp doon footballé <laughs> ba tey jii ba tey jii donc foofu la ñuy juddoo màggee fa mhm. euh, macha allah euh, suñu papa aussi dëkk fa ba ni mu génnee àdduna ñu nekk ak suñu yaay mhm. muy nag yaay joo xamante ni macha allah ci lu bare bare bare bare bari mhm. apporté nañu ko parce que xam nga nga teel nekk xale sa papa gaañu donc on nekk ak waajur bu jigéen loxoom jotul ginnaaw mhm. mais mu taxaw yar la ci fula ak fayda mhm. ak ngor mhm. kon kooku boo màggee loo tekki lu néew mu bari rek moom nga koy gërëmee suñ yaay taxaw donc ñu juddoon Nimzat, après Nak, voilà bi ñu demee ba dem école des arts génn la dimbali ñu aussi ben, moment donné il y a sept ans de cela me représenté tous les artistes sénégalais au niveau du CNRA loolu tamit ubbil ma yeneen bunt nga xamante ni dimbali na ma parce que damay jàpp ne que jusqu'à présent soppe mënul dara soppe ak ndaw la rek benn disciple boo xamante ni yàlla moo koy dimbali comme ni muy dimbalee ñëpp yàlla dëggal aussi man dama teel a jàng ci sama papa mhm. loo xamante ni ba tey jii loolu laay wéyee loolu may wéyee ci sama ay waajur ci sama papa mhm. mooy euh, maanaam dama mës a seetlu benn benn benn benn mbir mooy yu ñu dëkk Nimzaat euh, sama papa mën naa wax né limuy muy teel teel a nit mësul ñëw fin du mois ñëw ni ñu euh, location nangam donc man j'ai compris très vite que sama papa mi ngi bu bi may def CM2 que sama papa amna na lu ñu bàyyal kon maanaam tëkkuwaay lu ñu moomal suñu bop kon lolu ñun sag ci ñun tay ji muy man muy suma ay rak ñu dëkk ci kër gi bu ñu lekkee ñoo xam bu ñu lekkul ñoo xam bu ñu fandee ñoo xam bu ñu fandewul ñoo xam ma xam ni utal nañu sutura. Mm-hmm. def ñu ci benn kër. donc man boobu laa commencé ni li may njëkk am ci aar. Mm-hmm. néew mu bari ci théâtre kër laa ci jënd. yàlla dogal aussi ci sama liggéey ma rëcc suma bopp fighting ko. Mm-hmm. fighting ko ba li ma ci njëkk a am ki ngeen àndal nii dara umb ko si. muy suma tonton Pa Omar Diam yi nañ ko ba terrain bi noonu lañ ko amee. defal kër gi macha allah. waaw lool lañu la ñu jàngee ci suñuy waajur loolu la ñu jàngee ci suñu papa. Euh, fii nga toog nii ci barab bii nii fii nii fii mooy espace théâtre waaw moo tax mu tuddee ko théâtre pour wane ne fii damay faral di wax sax suma soxna ak suma ñëpp. Mhm. ni leen lii bokkul ci kër gi. Mhm. maanaam lii na yéex bu ñu doon miraas. bokku ci non ci. lii mhm. théâtre moo ko moom maanaam fii gënuma fi yey kenn. comme xam nga. aar bee ko moom aar ko moom. parce que aar moom ko jox. Mhm. moo tax mu tuddee ko ko parce que dem espace la bëgg defar après. ay maanaam espace bi moo war gën a nekk moo war a gën a dofe ci kër gi. espace bi waaw moo gën moo war a gën a dofe ci kër gi. te boo toogee da ngay jàkkaarloo aar en même temps. moo gën a <laughs> man fii ma boo gisee fii li tax mu ñor ma. Mhm. parce que dama ni bokkul ci kër gi. théâtre moo ko moom. Mhm. comme xam nga képp kuy artiste yàlla seede na ni. te dama lay wax ni lu yéeme laa lay wax. barab bii ñu nekk ni toog fi ci kër gi. Mhm. spécialité mooy nit ku ma tooñ boo toogee fii jégal naa la. barki sëriñ Saliou. Oh, nit ku ma tooñ nga mhm. dugg si barab bi mhm. baal la. waaw parce que espace la bu ma bu ma bu ma bu ma jox cër man. waaw bu ma jox cër. te heureusement. yàlla dimbali na ma ba tey jii fi may yeewoo tëngéej gi la. donc ñun banlieue bi la ñu am. ju doon Nimzaat

as makkan biir Tëngéej. dañ koy sant yàlla. macha on est fier on est fier d' être ñëw ñu kenn. am na solo am na solo du ci solo du ci ay wax du ci ay oto mais Tëngéej la ñu dëgg on est fier donc voilà un peu quoi. macha lu am solo loo xam mooy li ma lay wax rek da naturel moo tax ngay dund naturellement ci biir loolu noonu te mais tey su ma la laajee keppaaru maam. keppaaru maam euh, nit ku nekk war nga fexe ba fi nga dëkk nga am ay nga am fa woy mhm. nga am la fa je mm-hmm. man Nimzatt dama fa dëkk yow ak ño xamanteni je ma yar bi may nek xalé mm-hmm. yërëm bi may commencé tourner sama film sama grand frère yi lay sol. ma mag yaay dem ko sol ko. mo mm-hmm. waré dawal auto ci dem dawal te des fois ñu né ñu chez soi mais yalla dimbali na ma ba ñi nimzat en grande partie ku ci nek bu ma dina ma Ibrahima man de diw moy sama fans wala diw la bëgg donc comme sollicitation bi xawna bari ma de jékki ba si ma tok ni man naka la mën def pour y un wa nimzat fekk suma def événement bu euh, Noël pour tous mhm. ñu ñëw changer structuration bi de telle sorte que euh,

un moment donné on s'est dit nous génne les parce que on a un moniteur yu bari. nous mhm. ne nañ leen génne ci koñ bi ñu ah quartier bi kat nous na kër gi nous na nous lañ pour que ñu dem ci Nous keppaar fële xale yi nous nous jàng ñi dem ci benn nous devons nous fa jàng ñi dem ci nous fa Nous mhm. après ci lañ xalaatee ñu nous non attends mais keppaar yooyu Nous diw nous keppaaru diw la Nous ouais nous keppaaru woykat yi Nous ko nous nous mbay mhm. atelier écriture ñu nous ko nous Abdoulaye Sadji musique ñu tuddee ko keppaaru Ousay Diallo wala keppaaru Ismaël Lo wala keppaaru Kenen après keppaaru Canar Ndoy keppaaru El Hadj Babacar Dieng etc cetera yu demee noonu quoi keppaaru euh, Cheikh Samsou Mbuub léegi nag bi ñu demee ba benn moment keppaar yooyu xalé yi la jël ñu tok fa ak ñi leen di jangal bu moniteur le pour bu atelier écriture le mhm. atelier film atelier danse atelier théâtre ak yu démé non mhm. légui nak ñu japp ni biñu démé ba war ko utal tur bu méngoo ak ñun ñu ne comme keppaaru diw moo fi am keppaaru diw keppaaru ñoom ñëpp suñuy maam lañ ndekete mm-hmm. te ñu ngi jàng ci ñoom nañ ko tuddee keppaaru maam mm-hmm. ku nekk ci sa bopp voilà ci laay ko créer nag chaque année ñu indi durant trois jours képp kuy célébrité du monde théâtral nga ñëw Tëngéej paase ko ak ñun duggante ak askan bi ñu xam ne Tëngéej am na aussi lu fi am mm-hmm. mais ñoom tamit ñu indil ñu la ñu am ma am mbégte trop boo xamante ni bis boobu rek ngay gis artiste boo xamante ni day ñëw fii ak katkatam gaare ko yéeg ci watiir <laughs> loolu fii laa te dama leen ko imposer ba ñu adapté wu ci ñun suñu mm-hmm. circonstance mm-hmm. bu ñu ñëwee ñu fanaan leen Sénéfa mm-hmm. wala PTT walla euh, Rio Euh, bu ko defee mu nek lu neex ci ñun Rieer teranga bu ko defee euh, man ma am ci mbégte trop. diko def parce que je me dis li rek la mënal askan Rufisque hein. parce que fi la jàngee fi la jàngee théâtre pionnier bi kon bu ma ci mënee dara ba am ci connaissance lolu nit ñi dañ ci wara bénéficier wu. Mm-hmm. te donc chaque année dinaa leen ko indil. ñu saafante ak nit ñi ku nekk gis sa soppe léegi man ma taxaw nee nag di leen ree di kontaan sama xol sedd mhm. parce que noonu aussi ma leen di indilee ay soppe mhm. man peut-être bu ma demee ci beneen ville noonu la leen di waxee dama bëgg a gis Ibrahima Mbaye mhm. soppe donc ma koy fay askanu tëngee ci loolu moo tax keppaaru maam macha allah keppaaru maam daal kon doon loo xamante fi ne tey jii ku ne am nga ci wàll ku ne am nga ci nga ci benn benn touche boo xam ne war nga ko ci apporter mu doon loo xamante ni euh, li may wax rek ba lay génn guñ ci cadre naturel bi artistiquement

keppaaru maam toll fa. Mhm. bëgg naa toll keppaaru maam tolluwaayam dem ba chaque année ma indi ay metteur en scène yu jege bitim réew. Mhm. ñëw tëngeej di former ay xale. doon benn festival bu mag. bu bu am solo xanaa xamul daaw jéeg rek naroon nañ fi indi ay compagnie benn compagnie française ak benn compagnie marocaine mais parce que amuñu woon appui bi ci war. Mhm. parce que tëngeej ba mu man nag je pèse bien mes mots. bu dul Alioune Mar benn. bu ñu cent 500000 ñaari yoon ci festival. mairie bu Rufisque jàppale na ma ñaar yoon ben bi huit cent mille bi un million deux cent. amul benen maire bu taxaw fi mës ma jox dërëm amul. je pèse bien mes mots parce que ci télé lay wax. -hmm. du Albé du Alioune Mané du du du Souleymane Ndoye. Mhm. je pèse bien mes mots. -hmm. du kenn ku ma si mës a jox dërëm. ba pare ma lay yëgal dootuma demaat ci kenn ci ñoom laaj la dërëm. parce que bu dul festival bi man mosuma ñaan ni dara. Mhm. festival moo ma ñor. Mhm. te festival bi ñoom les acteurs qui maanaam administratif. ñoo ci war a jàpp les hommes pour mu dem. surtout mais bu dul ñoom man ay nit laa am. te nit ñi ma am ku ci nekk ci ñoom yàlla sayda na ni ba ci Mamadou mi gën a ndaw. Mhm. daaw 500000 la ñeneen ñeneen ay bonne volonté yu nekk tënkee ku mais ñi ciy jàpp ñëpp ñi ci ay nag daaw ñetti nag la ñu rey. ci festival donc imaginez bi on a dépassé plus de 9 millions. ci trois jours. Nous avons personnes nga dekkal leen trois jours durant di leen jox prestige di jox di jox troupe yi nga war fay. on paie 1 mm-hmm. million mm-hmm. pour les trois jours

parce que ben nit mi ngi fii rek wala ñaar nit ñet ñuy sét ku nekk dañu jox 500000 donc ministère bu ñu waree jox li té ñepp naan man dama far ak ministère je préfère laisser tomber. Mhm. ñu jàppaat ko après ba 800000 gars yi ci suma loxo ma jël ko. Mhm. parce que simplement je me dis une manière daw bi may def festival bobu xaalisu ministère jotaguñ ko. Mhm. jotaguñu aussi xaalisu merci beaucoup. jotaguñu aussi xaalisu. Euh, bon appétit hein <laughs> xaw bon appétit xaw bon boire. amul ben problème du bon boire. bon boire hein. <laughs> amul benn kon baax na naturel la rek. donc avant xaalis bi di ñew mhm. fekk na ñun Yalla dimbalé ñu. ba def nañ suñu festival bi paré mhm. ndax ay nit ñu bax ñu nekk fi mhm. des gens qu'on consulte ñu ñew jappalé ñu ñi ciép ñi dëwlin ku nekk ak li mu am ñi ak seen ay conseils. donc ñun on ne peut que se réjouir sant Yalla bu baax a baax baax. festival bi fii 2 ans bëgg na ko bàyyi. Hmm? pour kenen àggale ko. non man dama benen mission mission bu ñu fa tolloo lañ ci wax. mais est-ce que est-ce que tey fi ne li ngay wax ni dafa dafa dafa doy waat fi parce que dafa am benn yéene bo xam euh, euh moo moko moko moko moo juddulu mhm. mais tey jii est-ce que préparé nga keneen wala ñeneen yi nga xam ne ñoo wara a jël relève boobu noonu tam. dinaa la jox ay photo mhm. ay photo à l'appui bo ñu fekkee fu ñuy réunion wee keppaaru maam da nga nan du deug mhm. da nga nan mbooloo mi mënul nekk ci ginaaw soppe parce que simplement ay jeune lañu mais dévoués. dañu gëm keppaaru maam y a des jeunes Rufisquois y a des jeunes qui habitent aussi à Dakar partout te loolu tey jii man xalaat naa parce que man ay mission laay joobee de dama jàpp ni mënuma éternellement di nekk fii di def ay festival il faut que keneen ñëw téye ko mës naa xawaat Tëngéej bu ngeen ko téyewul ba mu dem feneen seen affaire la mhm. parce que festival ñun bi ñu amoon comme théâtre mooy festivalu Saint bu Kaolack mooy festival du rire bu Kaolack. Mhm. artistes yëpp moom lañ daan wàcc chaque année dem. à part Fesnac au moins. oui Fesnac sax dafa am lu ne dafa am musique am leneen am leneen. mais fest rire Kaolack dafa nekkoon capitalu théâtre mhm. mais léegi loolu yëpp fii lañ gars yi di ñëw. léegi keppaar maam gars yi solo di xotti ay ñëw pour pour pour waaj pour waaj ko préparer événement mais Tëngéej moment boobu amul leneen luy exister loolu festival bi. li muy dajale ci ay nit. li muy dajale ci ay doomu aadama. ci ay ay ay mais attends. il faut que ñom ñu xol ñun fan lañuy démé ba paré amna lo xamanteni mhm. j'ai l'impression que suñu njiit yi xamuñu ko. dañu japp ñun dañu nek rek ci ay kaf ak yu démé non est-ce que tu te rends compte que bu féké 500 personnes jóge nañu Dakar Saint-Louis Mbour Thiès Ngin Ginnaaw Touba fune ne la nit di jóge pour ñëw ci festival bi. Mhm. bu dé 500 personnes lañ ñi fa ñëw ñëpp personne bu nek personne bu nek mhm. tëdd na fi te ngeej famu teud dañ koy fay.

festival bi aussi da fay apporter lu bari ci Rufisque té da war doxal sax tourisme tourisme Tëngéej sax daf ko war a mm. doxal Rufisque fait partie des quatre grandes communes effectivement tay jii buñu ñu ba bay génn euh, kii bi ñun mu euh, euh kii bi péage bi ñu bind Rufisque ville de culture et de tradition mais tradition bobu lan moko saxal actuellement ak lan moko ko dundal nañu xanté dëgg am ben événement phare bo xamanteni ni dina tax ñu dëggal loolu ñu mm-hmm. lañu def ba daaw de bàyyi daaw de sa kenn gisatu ko hein mm-hmm. ñu def ba Mbassou Ngom wala keneen wala keneen koo xamante ni sur le plan culturel am na lu mu fi doon représenté kenn dootu ko xam. Mm-hmm. ak ñeneen ñoo xamante ni boo déggoon li ñuy def ci wàllu tëngéej da ngay yuuxu. n'est-ce pas mm-hmm. mais lan moo tax képp ku juddoo tëngéej pour nga réussir si dara wala pour nga foo nga dem Dakar wala nga génn. Thiès wala yeneen région yi artistes yi ñu am ñuy toj tele bi. Mm-hmm. ñun bu ñu wéetee ñoom dañ leen di jàngal théâtre. wàllu football boo ko waxee tëngéej mi ngi fa. ki fi njëkk a cer na Thierno mhm. bi biwam ba mu dugal 86 ba tey jii dañ koy woy. Mhm. ba tey jii Papa Ndiaye soirée keneen ak keneen Pape Bouba Diop suñ bii rëy ba. Mhm. tëngéej la jógee. domaine boo mënti wax am na tëngéej ku taxaw. léegi ñun ñu nekk ay complexe quoi du ñu jox li ñu war fii ñu développé dëkk bi. attends. doy na waar maa mën naan balaa may mën. doy na waar euh, mbokk chers internautes yéen a ñu déggandoo ak ki nga xamante ni mooy Ibrahima Mbaye macha allah ci li muy développé nee naa cosaan la. aadala la waaye itam diine la parce que njàngale dafa ne ci biir boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, li muy wax yéen a koy gën a dégg ay wolof yu leer nañ ñi lay wax loo xamante ni euh, tungu na teew ñuy nataal ni ko mag yi di waxee waaw mi ngi noonu ñu dem publicité ñëwaat ndax dama bëgg émission bi dafa am koo xamante ni wax dëgg yàlla moom mooy ki ko sponsorisé te def naa ne mooy borom yëf yi di Serigne Modou Ladiane borom jaasi ji mooy sponsor officiel bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom moo ko sponsorisé ba tax na rek moo taxoon ñu dem commercial noonu daal di dellusiwaat euh, mais si Ibrahima euh, euh, xam naa ni waxtu wi mi ngi ñuy dab waaye amoon temps <laughs> waaw kamantaan kamantaan de xam naa grand bel ko déy. non fi ne yi ñu may déy yëpp mënu ma ko laaj. non mais nag ma ko man man non mais man. si ma ci biir mais tu sais. Ah. dëkk Tëngéej. waaw non je sais je sais je sais. en fait kamantaan. Mhm. dafa nekk benn moment lu jotoon. Mhm. mooy euh, comme ni ma waxee sànq ba révolté wu. Mhm. dama gis ne Tëngéej li fi nekk ci ay artistes. amul fenn. donc mané ok gars yi ñu ngi diggé lénen di job lénen mhm. tout le temps dañuy accès sen affaire ci ay mbëggeel ak ci ay affaire ay détails yooyu demee noonu. Mhm. j'en ai parlé un jour ak Sidi Diagne euh, borom Wassa mu koy nuyu au passage. Euh, Sidi ne Ibrahim on va faire autre chose propose-moi dara ci la xalaté rek tout de suite man ak moom ci biir waxtan rek. Mhm. turu Kamantaw ñu parce que dañuma mais li am Dakar ni ça dit rien. ñi di ñëw fii ñi di grève fii ñi di taal fii ñi di rey fii ñi di nangam rek c'est parti comme ça rek ma ne ko non Cameroun donc Cameroun sosoo noonu ma bëgg ko décentraliser donc tout ay été tourné à Rufisque mhm. macha allah te bu ma la si wanee extrait di nga xam ni pièce bi fi mu war a tollu mhm. macha allah luy lu lu lu doy waar lay doon ba pare nag ay artist yu mag bokk ci mhm. je me suis permis benn moment donné ma génn Tëngéej teg benn tànk extérieur parce que tamit soppe mhm. dafa am ñu bari ñu muy liggéeyal ci ay kuréel te yoon la woon ma woo leen ku ci mel ni suma grand suma ndijaay mhm. suñu papa sax laay wax Lamine Ndiaye mhm. ku ci mel ni euh, Ox hmm. ku ci mel ni Mamadou Bitey journaliste Adja Adja Adja Sow Suado ñoom ñëpp ma woo leen ñoom Rose et tout ça Fatma bu benn donc vraiment gars yi ñëw jàpp ci biñ ñëwee nag fekk ñu fi Rufisque ñu nekk ben base. muy man muy Lebu muy tonton Pa Omar muy euh, Mambay Ndiaye. Hmm, muy euh, Marème Niang. tu vois muy ñom pharmacie. pharmacie si euh, waaw ex ñom woli di ay artistes yu da ngeen Mamar Mamar Diarra Thion hein, ah bari nañ ak ay jeunes yo xamanteni fi lañu fekk baax Tëngéej. Hmm. ñu def pièce bobu c'est pour 52 épisodes pratiquement on a tourné les 40. On avait commencé d'ailleurs avec la RTS euh, ci spot On a commencé. Mhm. mu am il fallait ñu taxaw xaar ko. Mhm. parce que le moment pour nous lancer un appel hein, aux mhm. structures de la de la de la ville. lu demee ni ay Sococim. lu demee ni ay euh, Sedima. lu des ay usines yi sont fii ci sont Tëngéej. bu ñu demee ba noonu nag mënuñu ñu dañu sponsoriser. ça pose problème. tout parce que tey jii bon gis nañ leen ci làmb yi.

je pense que tur bi ah, tur bi tur bi daal tur bi daal am na lu mu wax xam naa ne moom insha allah rabbi bon ñun moom Diassigui ji TV mi ngi ciy xaar wàllam mhm. ak loo xamante ni war na ko ci mën a taxawee ñu ngi ciy xaar suñu wàll pour taxawee ko ci donc ñaari question yi xam moom la bëgg a jeexale suma émission ak euh, bi ci ci ci ci ci ci carrière bi théâtrale bi yaa ngi koy wax sànq ñu bëri dañ jàpp ni fi mu toll nii daanaka ay fo la ay réel ak nangam nangam mhm. tey bu ma la ci laajee lan mooy gën a touché ci sa carrière <laughs> waaw loolu de yéeme na bari na ay ay ay ay ay mbir yoo xamante ni lu ma ci lu ma ci marqué la mhm. déjà dama lay wax rek benn affaire man sama théâtre ku ko gëmul man gëwuma la. na yow théâtre dafa ne ci yow. merci donc moom laay noyyee moom laay dund moom rek laa gëm moom laa xam. Mhm. ok euh, dama lay wax benn ci anecdote mhm demna en 2010 par exemple au Bénin mm-hmm. bu elle avait 30 ans à l'époque mosul gis papa yaa je may dégg fi la mm-hmm. garde présidentielle Senghor mm-hmm. retraité avait jabaram sénégalaise ñu dem Bénin ndaw si ëmb mu divorcé ak mom ndaw Sénégal am ko musul gis papam ba 30 ans. Mhm. théâtre motax ma japp ci loxom ba mu jàkkaarloo ak baye lolou kessé jur bob dama ni manam fi buma fi yemoon. Mhm. man sama théâtre matna mhm. parce que billet d'avion yama amone amoon. war ko jouer pour théâtre moom laa ko jox ak man. ak sama administrateur. ñu dem benee dem porte nouveau andak ay malien ak yay français mhm. ñu andak ñom ba dara dessul dul dem ci kër gi mhm. ma japp loxom ñi la ci kër gi ba sëram ak ñun yóbbu ba ci kër papa papa ji xamna existence am mais mosu ko teg bët xale bu jigen bi japp sama loxo ni ko di lox papa ji taxaw mu taxaw ñu jakarlo ku nekk di jooy lol théâtre may na ma ko loolu kese dama ni mo fa togon doy na mhm. Demna Bruxelles tëdd ci suite hôtel 5 étoiles. nelaw ma ba bët set ma tok ak samay tank di xol sant yalla ni li théâtre ba momoko may. momoko defal. théâtre taxna mangi sant yalla d'accord théâtre yar na ma def na ma nit. théâtre taxna ma am ni doomu adamay théâtre bégal na ma c'est-à-dire le bi may am bi ma théâtre di defal ci doomu aadama kese kese kese am na si yoo xamante ni du ma si dugg ak yow parce que dama gaaw yéeg man dama yéeg te waaw te bëgg mu waaw mu yéeg macha allah waaw mu yéeg quoi am na solo am na solo <laughs> parce que moom man man personnellement du ma la am na sa sa yoo xam ne dama ci setaan man personnellement waxuma reggae yi mais dama ci jàng àdduna mhm. ciy jàng lu bare bare bare xëy na su toogee di la ko waxee xëy na jotaay bi mën na jàpp ni jotaay bee tax. Mhm. mais intérieurement de ma personne. Mhm. sama diggante ak suma borom xam naa li may wax suma borom xam na li may wax donc tey ji benn question bi may jeexalee. Mhm. Hmm. yaa ngi koy wax sànq da ngay dëkku cosaan dëkku aada ñu baax ñu bëri valeur ci àdduna ci Sénégal jaar fi mais tey jii buñ ñu koy xam yaa ngi koy lim sànq noonu ci ay joueurs ci ay artistes yu bare bare tey jii artistes yi nga xam ñu ci wàllu musique bi. tey jii dañ ciy dégg ay man góor jasaaka ñu dégg ay góor gi Ndiaye. Mhm. mais naka la seen relation def yéen waa yooyu ak musiciens yooyu tey jii nekk ci biir. mam góor jasaaka. non seulement ñoo bokk koñ mais sama yaay lañ ko ndeyale. <laughs> sama yaay. Mhm. moom mooy yaayam. ñu am ay lien de parenté. ok du ñu fréquentante nag. Mhm. mais suma mag la. suma xarit la. bu ma la waxee woo na ma yaa même pas une semaine doo gëm dañuy déggante. samay dégg pour wax la ni jàmm rek moo am suma diggante ak moom. góor gi Njaay lu ma def moo ci jiitu. ci photo yi keppaaru maam yi. y a sept ans huit ans. góor gi Njaay mi ngi ci. donc histoire de te dire. Euh, que ñun suñu biir sant yàlla. benn am na daal. góor gi mbuub. clipam bi mu mujjee def man maa ko réalisé <laughs> ok maa ngi seq jàmm ak artistes yi fi nekk yëpp parce que loolu moom mooy suñu wareef comédiens yi fi nekk aussi maa ngi seq ak ñoom jàmm moom mooy suñu wareef parce que loolu tamit sag la te ñun aussi bu ñu bokkul dañ koy yàq parce que musique bi boolewuñu dañu bokk benn ci askanu ngéwél suñu yaay yi fekkente fi suñu baay yi fekkente fi seqi jàmm seq teraanga. Mhm. donc ñun bu ñu sequl jàmm ak teraanga yàq nañ ko. franchement yàq nañ ko te loolu ñu ngi ciy jéem a bàyyi suñu waar. yàlla ci yàlla jàpp rek seetaan bañ ci dugg. waaw. Euh, waxtu bi ñu cërale woon jeex na man doyalu ma ñi ñuy seetaan tamit doyalu xam naa ne yow it doyaloo xam naa ne même doyal mën nga doyal a yéeg <laughs> waaye buñ la doon bu ma doon laaj ji message bi nga xamante ni war nga ko euh, lancé à travers tey jii askan bi surtout plus particulièrement ñi nga xam ne tey jii ñu ngi lay xool ñu ngi lay setaan ñu ngi lay roy wala ñi ngi bëgg melni yow tey jii mu doon kàddu gu mujj ci jotaay bi tey jii lan lay do xool. waaw euh baramay lancer appel euh population bi. Mhm. damay lancer appel ministre de la culture ak le président de la république. tout à fait. mooy ñu gëna reconsidérer seen position ci wàllu culture. hmm mës naa am sañ-sañ bok chance la ko hmm ak le président Macky Sall parce que xam nga média dafa doy war mu invité Youssou Ndour pour mu indil ko du mat fanwéri artiste mhm. pour mu yendu ak ñom agn ak ñom Youssou Ndour joxe sama tur mhm. ma dem yendu ak président toute la journée donc amna ci mom sympathie parce que amna luma fadal ma ci anecdote bo xamanteni mhm. marqué na ma ba tay ji parce que biñu démé ba wara agn dama ñëw taxaw man maa mujjee jóg président rang ñëw taxaw sama ginnaaw ma xool ko nii ree ni ko président kay sama kanam mu ree ni ma non non non taxawal fii Youssou si boppam mhm. Youssou Ndour moo ne ma noo soppee kii yow yaay ganam yow yaay taxaw ci kanam ma ne ko non daf may neex grand suba ma ni man maa añ après président de la république <laughs> mu rey président ci boppam mhm. ni ma noo eh, soppee c'est mieux de dire man maa añ président soog a añ loolu moo daax donc loolu laa lay bàyyi nga wax ko c'était très sympa mhm. mais mais je je koy ñaan dama ko waxoon ci nationale des arts formation de dafa mm-hmm. mais je damay wax ci condition artistique d'une manière générale. Le mm-hmm. problème du statut de l'artiste qui est réglé au Sénégal. Le problème formation bi formation na. Mm-hmm. yalwaan bi ak desak laaw bi. ni ngi mais je bëgg juste que le président de la République. reconsidérer la part du comédien sénégalais et de l'artiste en particulier parce que nous avons une présence de famille mhm. toute la journée nous jabar yi nous yaay yi nous mhm. sommes scotché wu ci télé de suba comment se fait-il que nous ñu pas jox suñu Covid 19 bi ku que artistes mhm. artistes sur le plan de la communication ils sont restés en rade. artistes si bu ñu waree tukki bu ñu waree faju bu ñu même si euh, Michel bi commencé di mais je pense que ne pour artistes te loolu y a que le président de la république qui peut régler ça et le ministère de la culture nañu reconsidérer cette position vis-à-vis de la culture sénégalaise loolu moom lu ma koy ñaan la appel bu ma koy lancé tu amènes à maintenant la population bon di sant à rek di wax ne nañu gën a góorgóorlu gën a jàppalante gën parce que tamit man xaw naa jaaxle ci Tëngéej ci Dakar ci Sénégal d'une manière générale Les da ngay dégg ay affaires yoo daawul dégg da dégg ay xeetu métital yooyu dégg dégg ay xeetu agression yoo daawul dégg dégg ay xeetu ñaawteef yoo daawul dégg dégg ay mbir yoo xamante ni yow sax danga koy jombale sa nopp te léegi mi ngi am ci société bi bu yàqul ñu la yàqul de ñun rek ñoo ko mën defar te defar boobu du leneen lu jul dellu këri bàyyi xel ci ngor ci jom ci fulla ak fayda ak am looy jomb kula la mag nga xolé ko mag kula la mag bàyyi nga jox ko ciiru bàyyi ko mag nga tane ko ta yalla tax nga yërëm ko bàyyi naxaté bàyyi fen bàyyi jëw ko gis yene ko jàmm comme sabab te lolu je pense que buñ ko défé yalla mëna ñu dimbali lépp nak lu ñu mën góorgóorlu ci diiné bi tamit ñu def ko mais sinon li ñu jigante ni en ce moment ay agression fi ay sàcc ay viol fi ay ñaw ñaawteef ni defarul nak ben société

joué nañ ci façon bu ci ne joué nañ ci rôle bu ci ne wane nañ ci pièce bu ci ne ngir kenn ku ci ne mën cee jàngal rawatina ci réew mi ñu nekk ndax réew mi réewu diine la réewu cosaan la waaye réewu aada la te damay faral di wax ni ku xamul sa démb doo mën a la ci sa tey ba tax na rek kon bi mi ngi noonu dig daje lañ leen di jox incha allah rabbi ci beneen numéro ak Guest Star ci biir Diassigui TV salaamaaleykum wa rahmatullah Iseen Lo jaa ngeen